ñu leen di ziar di leen nuyu di jël nuyoo bu tedd te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah di ko teg ci seen jëmm yu tedd yi. ñu ñëwaat ak yéen ci seen tafsir yi ñu leen di amal saa su ne tey nag ñu ñëwaat ci saar bu ama am solo ñu koy wax suuratu nasri suuratul nasri nag bi ñu ko waxee mooy saar bi nga xamante ni moom moo mujjee wàcc nee nañ bokk na saar yi mujjee wàcc waaye fan la wàccoon mi ngi wàccoon ma madinatul munawwar moo tax ñu ko doon wooyee almadaniya lan moo taxoon mu wàcc nag suñu boroom leeral na ko ci saar bi ndax am nañu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësoon a woo Fatima ak àll yi bi nga xamante ni saar bi wàcc na di kontaan ci dikk yi nga xamante ni borom bi subhaanahu wa taala moom la ko dig ci saar bi di suuratu nasri waaye suñu borom bokk na ci saar yi ñu ko dig tamit ci wàll ubbeek màkk ba muy suuratu fatt moo tax saar bi ñu koy tuddee suuratu fatt ndax digg yaka borom bi subhaanahu wa diggoon ba muy def ba muy dem di def li ñu naan sulxul xudaybiya muy bëggoon a ubbi màkka tal mukarram te waa màkka bañoon waa xureesi di waa yéefare bañoon mu dugg màkka bi nga xamante ne loolu am na suñu borom da ko encouragé woon ni ko danga ubbi yàgg-yàgg da nga dugg màkk waaye saar bi la ko borom bi subhaanahu wa taala gën a confirmé gannaaw bi nga xamante ni def nañ xaswatu xunay ni bu ñu waxee xaswatu Xunayn mooy xare bu métti woon bu doxoon diggante julli ñi ak Bani Hawazin mu nekkoon benn géer ba nga xamante ni géer bu amoon doole la gannaaw bi nga xamante ni xare bi amoon na gannaaw loolu nag borom bi subhaanahu wa taala bëgg a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko nag coono yi nga nodd ak yépp ci ay xare muy xaswatu Xunayn mooy xare bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee woon a def yàlla nag xamal ko ni ko léegi sax nit ñi danañ dugg te du aajowoo ay coono yu bëri wala ay xareeti moo tax bi saar bi wàccee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woo ki nga xamante ni mooy Ali ak doomam Fatimatu Zahra daal di leen wax dikk yi nga xamante ni borom bi subhanahu wa dig na ko ci saar bi nga xamante ni moom lay wax sóotu nasr ñu ko daan wooy sóotu nasr bu ñu woy waxee sóotu nasr mooy saaru ndimbal ndimbal waaye doon nañ ko wooy tamit sóotu tawdiya saar bi nga xamante ni saaru tàggatoo la saaru tàggatoo la ndax am nañu ni bi nga xamante ni moo nekk saar bu mujjee wàcc gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokku rek aay bi mujjee wàcc bu ñu nee aay bu mujjee wàcc mooy al yawma akmatu lakum ba aay boobu ni mu jeexee waaye aay saar bi mujjee wàcc mooy saar bi kon moo tax ñu ni doon nañ ko woowee suuratu tawdi saaru tàggatoo ndax bi mu wàccee ñaari at lañ ciy def tegaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fi bàyyeekoo waaye tamit ñu ko daan woowee saaru fàtt comme ni ma leen nettali sànq borom bi subhanahu wa taala lan la ci digg yonente bi sallallahu alayhi ba yonente bi kontaan woo doom bu jigéen woo Seydina Ali karamala wajhahu lan la lay wax lan la ko suñu borom wax banda bisimillahi rahmaani rahim iza jaa su dikkee su ñëwee nasrullahi ndimbalug yàlla ndimbalug suñu borom bu ñëwee kat lan mooy xew mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa dana ko yow suñu borom yow rek laay dégg nee nga ndimbalug suñu boroom bu ñëwee ak ubbi màkk ba wal fatt ubbeeku màkk ba ba nga xamante ni da nga dem ubbi ko incha allah dugg fa def li ñu naan omra ziyaara màkk waaye nag doo ci yam de yàlla ne ko nag war a ayta maa ngi giñ ni boobaa danga teg sa bët da nga gis lan naa sa nit ña boo duggee màkk def fatku ubbi màkk ba ziyaar maa ngi lay seetal di la giñal ni incha allah yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan nit ñi danañ dugg ci diine suñu borom def lan ay mbooloo yu bëri yoo xamante ni yow yonente bi sallallahu alayhi wa sax danga mujj yéemu ci loolu te noonu la amee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee fàttuku dugg màkka daal di màbbal seen asnaam ya seen xërëm ya ak seen yàlla yi ñu daan jaamu waaye bés boobu nag la waa Quraysh yéefar yu bari daal di wàcc seen bopp ndax lan moo taxoon ñu dugg ci lislaam jàpp nañ yonente bi sallallahu alayhi wa bu duggee màkka ànd ak lu mat ay junniy junniy saxaabar yor arme mën naa fàggaagal yéefar ya fa nekkoon yépp waaye dafa dugg màkka rek daal di def asnaam xërëm yaa nga xamante ni ñoo fa nekkoon bi loolu amee nag am na ñoo xamante ni dañoo dawal seen conscience ni yónnante bi tey doole la fi indaale te moonte mënoon naa ñëw daal di ñuy noot waaye defu ko kon nañ dugg ci diine lislaam lii mooy dëgg lii diine yërma yërëmante la waaye diine la boo xamante ni du ko néewal du ko mën sa morom nit néewal ko doole kon nañ dugg ci diine lislaam moo tax yàlla waxoon ko ne nag di nga gis nit ñu bëri ñu daal dugg ci diine lislaam moo tax bés boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bés boobu la def omra waaye nag ñu bëri daal di tuub nekk ay jullit te dañoo lànkoon ni duñu mës a nekk ay jullit bi loolu amee nag borom bi subhaanahu wa taala ni ko nag fasabbih na nga jombale sa bopp la nga xamante ni yàlla di nga ci am kersak suñu borom noonu lañ ko mën a waxee na nga jombale sa bopp bu boobaa gën a nekk ci yoonu dëgg ci yoonu dëgg boobu mooy lan bi hamdi rabbika mooy na ngay sant sa borom di def la nga xamanteni borom bi mom la lay cante bu boba kat na nga jomale sa bop la nga xamanteni ni safaanoo na waaye nag na nga sante sa bop ci li yalla li la yalla defal xewal bi la defal te xewal boobu moy lan ubbi nga mak nit ñu bari tu nañ la fay dugg te mu sax da ngay xare nak wastaghfirhu ta bu boba nak na nga delo sa bop sa sunu borom da la koy jéggalu wastaghfirhu na nga jéggalu sa borom yow yunus innahu moom kat sa boroom borom kaana tawaaba moom mooy jéggalaa kon moom moom rek dañ war a jéggalu bàkkaar lu mu réeree ci moom rek lañ war a dellu daal di koy jéggalu ndax mën ñu koo jéggal kon mbokk yi jàng nañ ci aayat bu njëkk bi ndimbalu suñu borom bi nga xamante ni saa su ne deñ ci jaamam yi waaye saa saa su bu jaan bi demee ba découragé bu jàppee ne yàlla amul rek mu ngi def erreur mu ngi nax boppam kon jàng nañ ci ni ndimbalug suñu borom fu ne la mën a ñëwee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bu teeloon a découragé kon ndimbalug yàlla du ex du àgg fii ba lim bëggoon a laataa mu fi jóge daanaka amoon na ubbi na màkk mboolu mu bari ñëw nañ dugg ci diini lislaam te loolu la nàmpataloon loolu la bëgg bi nga xamante ni tamit yonente bi sallallahu alayhi wa def na loolu delluwaat madinatu munawwar woowaat saxaaba yi gën leen a yeddaat yaat leen waxtaan ak ñoom waxtaan yu bëri moo tax am na ñu ni saar yitam bokkoon na ci saar yi nga xamante ni mooy saaru tàggatoo bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari at la fi defaat daal di wàcc liggéey waaye ba léegi tamit jàng nañ ci saar bi tamit ni suñu borom xéewalam fatxoom fu ne lay fu leen lay ñëwee kon bu mës a ci xéewalu bi suñu borom ak ndimbal bi suñu borom waaye tamit suñu borom subhanahu wa jàng nañ ci ni lan lañ ci jànge mooy nit ñi nga xamante ni duggoon nañ ci lislaam nekkoon ñu néew nga xamante ni fukki nit ak ñaar ñoo njëkk a jaayante si lislaam maanaam jàng nañ ci ni boo commencé ci wàññi benn xamal li yàgg-yàgg dana jeexee nombre bi nga ko bëggee wala dana yegg téeméer waaye boo tegee benn benn wàññi rek découragé fa nga jëm rawatina mu nekk lu baax da daal di dëpp da nga découragé waaye fukki nit ak ñaar njëkk a jaayante ci bayatu aqabati al ula waaye tey ay junni junni ñoo doon jaayante gannaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee fatxu bi jàng nañ ci ni wàññi boo gis benn lay commencé loolu jàng nañ ko ci saar bi waaye jàng nañ sa lépp lu la borom defal ci xéewal tamit na ko ko delloo te xam ni moom rek moo ko yeyoo bul naagu bul mës a yëkkati sa bopp ba fàtte suñu borom xamal ni suñu borom moo la jox xéewal yooyu te xéewal yooyu tey tey mën na nanguwaat lu mu rëy rëy mën na ko nanguwaat lan nga war a def kay mooy di yokk sa jaamu yàlla di sàbbaal sa borom waaye nag di ko tuubal saa su ne di ko tuubal saa su ne ndax lan ndax mu gën a mën a yokk xéewal yooyu waaye tamit mu xam ne sama jaam bii kat wax dëgg yàlla béewul naaguwul ci xéewal yi nga xamante ni defal naa ko ko kon mbokk yi mu nekk saar ba nga xamante ni saar bu am solo la bari na ay jàngat yoo xamante ni mi ngi ci biir saar bi kon seen mbokk seen xarit moo leen ko indiloon ñu koy woo gën koo xam ci oustaz Maam incha allah beneen yoon ñuy ñëwaat ci beneen tafsir ñu gën ko xam ci suratul kawsara moo ci topp waaye incha allah noonu lañ leen ko fas yéene toppalante ba keroog incha allah ñuy matale li nga xamante ni moom mooy suwar yi mbokk yi seen soppe seen xarit mi ngi wàcc fii kàddu yi di wax lépp lu si dëng ñu xam ne suñu matadi la ak suñu ñàkk fasaaxa waaye lépp lu si jub ñu ngi koy sante borom bi subhaanahu wa taala subhaanaka la ilma lana illa ma alamtana seen seen falaas point com na ngeen ci abonné ngir ngeen mën am mboolem vidéo yu ñuy dugal ci wàllu tafsiru quran wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu